mbokki julit yi mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a baaxoo ak ñun ci seen site internet bi di al delu ci wat nañ ci émission bi di al lawhu wal khalam ñu baxo ci dalal lenn ci ay kat ak ay gëstukat kat yoom tini yu ràññu ko ci yoonu mourid lañ bind ay teer yoo xam te ni yu fasantikoo la ci xam-xam yu wuute ci langue arabe ak ci français ak ci wolof tay ji ñu wara a ci ñaar fukel ak ñaar di ci and ak suñu serigne serigne Khalil mu sering basirou mu serigne fallo. di ci fego tamit ak suñu mbokk siak Cheikh Silla talib ngir jangat téere bo am solo bo xamanteni bindor nako tuddé ko tuddee rahman xamna ginaaw xam bi bi ñu leen ndokélé ci weeru kooru màgg wi nga xam ci lañ nekk di ñaan yalla borom subhanahu wa taala may ñu li ci jotta jall mu nangul ñu lepp li nga xam mo ci desit mu defal ñu tawfiix bañ man ko wooree comme ni nga xam na lu ko bëggee xam naa ci njëlbeen niñ baaxoo doxalee jotaay bi dañuy jox sëriñ bi sëriñ Xalil ginnaaw biñ ko dalalee di ko jox mu nuyoo ak mbokk yi ci biir nuyoo beet euh, ni émission bi baaxoo doxee ki ñuy dalal daan na faral di junju lenn ci jaar-jaar yi nga xam ne amee na ko ci wàllu xam-xam ak tamit lenn ci téere yi nga xam ne jot na ko taalif bismillah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 nekkal sëñ bi ak mboolem kilifa dëkk bépp di sant yàlla bu baax di am mbégte rek ci teew gi nga xamee ne teew ngeen fi te lépp di yaatal xam-xam doonte sax borom xam-xam yi borom xam-xam yi buñ buñ buñ leen doon lim maanaam duñu ci boole waaye teewul rek. Euh, bëgg lu baax ak bëgg yaatal xam-xam ak bëgg a soñu ñeneen moo tax ngeen ñëw ci barab bi ñuy sant yàlla baax di leen dalal ñaan yàlla barkeel liggéey bu baax te yaatal ko ci barkeel Sëriñ Tuubaa li nga laaj muy jaaruwaay bi euh, weesu dëkk bi nga xam ne ci lañ nekk muy Tuubaa fi lañ ñëwee jamono fi lañ alxuraan tamit ci daaray sëriñ Aliyu Gazama nekk ci yoon Daaru Rahman ginnaaw ba tamit téere xam-xam yi nga xam ne moom lañuy ñuy jàng ci dëkk bi yi ci ëpp muy sëñ bi bind ak yeneen yi yi gën a bari barab boobu jang nañ ko fa ci at yu teel ginnaaw bañ fa joggé nak jang nañ ci ci ay ay barap fi dëkk bi na biñu bisé ja kër ga mel ne siñ aafay buso nañ fa jàngaat ay tax ko bari tax ko yag lool bari lool takku sa ngi ci juma ji ñi jangal jàngal takku sa ak ci yeneen borom xam-xam ak gëstu rek yaatal yaatal gëstu góorgóorlu nga xam ne ci ay jamono sax jamono yu njëkk ya da nga doog dugg ci njàngale bi nga xam ne booba xëy na da am jot ndax yi gàllankoor nit yu bari xëy na booba gàllankooru la léeg-léeg mel na at mu nekk nga jël benn fànn xam-xam xam ne ca ngay gëstu at at lépp lépp la ci gën a bari téere yu jëm ci wet googu nga dajale ci yu bari di gëstu rek kon daal Tuubaa moom mosuñ koo jé mosuñ koo génn fenn sax maanaam mosuñ koo génn ci ci ci jàng alxuraan mosuñ koo génn ci jàng xam-xam tamit mosuñ koo génn tamit dem fenn tukki sax fenn musuñ ko génn daal <laughs> mosuñu ko génn dëkk benn weer boo xam ne nekkuñ Tuubaa mosu am loolu ñu ngi sant yàlla bu baax Euh, bu dee ci wàllu téere yi euh, mat na juróom-ñaari téere wala boog yiñ ci yiñ ci xam te sox day yàlla suñu borom bi mooy mooy dogal rek waaye daanaka bind sax moom nekkul lu nit nekkul loo xam nit da koy wàcc ndax téere yi ci gën a bari téere biñ euh, lu jiitu ñu bind téere yi daanañ daanañ bind bind ay wax yu jëm ci xam-xam wala ci ay waxi wolof wala bind jekki-jekki rek dara ñëw saxal nga bind ko bu dee ci wàllu téere yi moom ci atum deux mille deux mille quinze jëm deux mille seize ci lañ ci gën a jëm te ni ma ko waxee léegi téere bi njëkk a bind muy dalilu xayraan ci yiñ ci xam wala mu munawwir te yenn téere yi sax seen yi eh, dañ ciy barkeelu ci téere sëñ bi yoo xam ne dégg nañ ne sëñ bi bindoon na ko te gisuñ ko kawkabul munawwir boobu bokk na ci xanaa bu demee ci an-nafahatul miskiya fi siratil mbakkiya bu ñuy demee fa fa fa eh, bi de fa muy bind téere téere sëñ bi danañ ci gis kawkabul munawwir te defe naa bokkul téere yi ñu kon ñu barkeelu nag bind indi tur woowu mu ñëwaat bokk na ci ñu ne dalilu xayraan wala kawkawul mu nawir loolu bokk na ci ba ci fawsul mubtadi bii nga xam ne moom moo leen mujj a bind moom ci téere yi ñuy wax ne sëñ bi bindoon na ko ci wàllu naxwu te moom itam bokk na ci téere yi nga xam ne gisuñ ko wala boobu ñu bari gisuñ ko ñu barkeeluwaat ci tur woowa daal koy tuddee téere boobu jàngale ci séer maanaam séertu seex kon te tamit li gën a tax ñuy bind ci fànn yi eh, ginnaaw dañuy jàngale xam-xam léeg-léeg nga yëg ne am na fànn yu ñu war a teel a jàng te day mel ne ñu bari ci ñi njëkkoon a jàng defe nañ ca amag leer ak ubbeeku moo tax nga yëg ne war ngaa mën a jéemantu ba ñi doog ñi tàmbalee jàng njàng mu ndaw mi am na xam-xam yu ñu war a teel a xam ci majaalis bi bala ñoo dem ba ca kaw mu leen di raw loolu bokkoon ci tasawuf tasawuf di ko jàngale ci sax ci ci maanaam ci ay téere rawatina di ko jàngale ci wàllu euh, tarbiya tatbix bi loolu lu néew a néew la te ku ko jàngut ci wàllu téere yi tatbix bi mën naa des donte nag tatbix bi sax mooy gën a dëgër njàng mi ndax loo xam loo jàng ba xam ko maanaam boo ko dundee day gën a day gën a leer ci yow nga xam ne li nga jàngoon mooy li nga xam ne xaal boo toll da ngay mën a mën a xam ne xaal bii la donte nag xaal moom dañuy wax ne euh, maanaam nit ki euh, mënu maanaam jamono ji bi nekk mënut a xam mu nekk fi mooy fan. da nga xam moom doo ko mën a misaal jamono ji ciy nekk faaw nga weesu ko rek baa ngi ca maqaama doo ko xam ne barab sàngam nga tolloon waaw loolu le loolu la kon daal tasawuf la yaatu yaatu la ñu bind ci nag. ngir gone eh, ñi jàng ci daara ji ñu teel a jàng xam-xam boobu xam ci dara yóbbaale ko bu ëllëgee ñu ñu mën caa ñu mën caa yaatal noonu lañ ko defee ci mustala mustala xam-xam bu ne la ci dëkk bi xam ne ñun liñ ci jàngoon dëgg-dëgg eh, mbokk mbokk moo xam ne xaritu suñu bas la woon ko tuddee Moussa Jaxate ne ko borom xam mag daa traduire ay téere daa jàngale Dakar xeeti fànn yooyu yooyu moo ñu jàngal ci jamono yi mbat ñetti weer yoo xam ne daa daa daa am vacance ñu ñu ñu nekk suñ ci kër ga am lañu njëkk jànge ci kon fànn la koo xam ne bëriwu doon ci dëkk bi tamit ñu taalif ci ngir daara ji wala gone yi ñuy jàng man cee teel a xam dara moom itam yóbbaale kon nekk day daanaka day am sabab euh, téere bi may daa maa yu baraxam bi rawatina ndax xilmul euh, quraan euh, day xam-xam bu am njëriñ maanaam ni ko ni ko waxee xam-xam bu am ni boo xam ne dafa làmb xam-xam yu bari te xam-xam boo ci jël bu nekk boo ci wax maanaam doy na sëkk rawatina li ñu tuddee xilmul rasmu mi xam-xam bu tumuranke ci jamono ji nga xam ne ni xilmul quraan tumuranke ni ñu koy fekkee tumuranke na baat boobu xilmul rasmu moo gën a tumuranke ndax suñu mag ñi ñu maam Anta mag ñi mag mag ñi daa bind kaamil dañ daa wax ne sama kaamil yi maa ngi ko bind ci xeetu nu sàngam nga xam ne daan la loola ci jaaxal demal ci barab sàngam nam ko waxee noonu laa ko dëppale nga xam da ngay mën a tàqale bi ak rasmu bee nga xam-xam bu yaatu nag nga xam ne alxuraan ci boppam ar rasmul usmaani eh, daanaka day wax am daanaka mbind muy wax la defe naa mas nañ cee waxtaan ci yenn baat yi lu tax ñu koy bindee nii ci alxuraan fenn fa ñu bind ko ne nga xam ne lu mel ne rahmatu wala jannatu léeg-léeg ñu bind ko taagu taagu tàlli léeg ñu bind ko taa fii ne loolu lépp am na ay isaara yu ñuy def léeg-léeg euh, man mas naa ko misaal léeg-léeg aw xam bi ne xaalal mala'u bind ko laam alif léeg-léeg mu bind xaalal mala'u nga xam ne ugi ak waaw bind am sa gi ci kaw léeg mu bind ad duafa u binde binde ko ak waaw amsa gi léeg-léeg bi ad duafa u binde ko am amsa rek maanaam bind ko maanaam euh, alif mamdud fii ne loolu xam-xam bu yaatu la boo xam ne daanaka ku ko seetantal euh, yàlla fi muy wax naan sa uriikum ayaat yi lan moo tax mu def ak waaw ci ginnaaw ugi te yeneen baat yi mel noonu du am loolu da jëm yàlla yu bare bare la wasamaa balenaha bi ayaydin bi aydin la ñuy jaa mooy dëgg-dëgg waaye faaw ñu bind ko ñaari yaa loolu lépp fii ne wax ji bu jëmee ci yàlla niñ koy bindee ci yax bi du bokk bu jëmee ci geneen mu li yaru yaru xam naa maa ngi guddal loo xam ne jëru laajuma ko waaye wax rek bu ko defee daal demee ginnaaw tamit muy xam-xam bu yaatu daal rawat na ci wàllu xiraa xilmul nga xam ne indi nañ ci juróom-ñaari xiraa yi am ak seen riwaaya moom itam xam-xam bu yaatu ci xiraa bi riwaaya bi tarixa yi amaat ci biir eh, riwaaya eh, loolu lépp lu yaatoo yaatu lu mat a ràññale la te ñun ñu bari nag dañ koy maanaam mën nañ koo jaawale kon ak jamxul quraan nag yëpp indi nañ ko ci téere bi kon daal xam-xam bu yaatu la ginnaaw miraas mi rawata xam nga miraas xam-xam bu doy waar la jëfewut waaye léeg-léeg téere yi bii mën naa indi lii bi indile lee bi indi lale day baax nag loo xam ne day mën a dajale nga xam boo ko jàngee rek moom daanaka mën nga caa sukkandiku la ci des xëy mën nga ko gëstul sa moo tax ñu bind al muxnaani asfar waaw ginnaaw ba tamit eh, bindaat masal gu anwaar muy jàngale ci xilmu xilmu xilmu felak wa tamit xam-xam bu ku euh, xaw kii waaye loolu lépp dañ cee bëgg rek jàng ndax xam-xam téere bi yow mi ngi koy bind da nga ciy jàngale daanaka tax yaa ci gën a jàng ndax jamono yi ngi koy bind lépp lu aju ci wàllu koogu faaw nga jéem koo gëstu man nga caa am xam dara waaye mën nga caa xamaat loo xam ne jamono yi ngi koy bind ci nga cee xam leneen loo xam ne ci nga koy xamewaat daanaka am jàng la dañuy wax naan jàngale am jàngale waaye bind am jàngale rek ndax fànn boo bind moom daanaka da nga da nga ci fekk lu bare bare kon ñu bind ko leeral ci wàllu waxtu julli yi leeral ci ixtilaafu mataalix indi nañ ci ak diggante ci diggante bi ind indi majmuuxa yi nga xam ne mooy chamsi bi sax indi nañ ko ci mboolem adduna yi am bu ci nekk ñaata fan lay wër boppam ak ak li ñu tuddee yi nga xam ne ñoo jege jant bi yi ko so rek ak majmuhul ko xusaamul koy ki baat yooyu nekk ci diggante bi ak boo bëggee xam xibla no koy xamee ci te di ko takk ci jamono ji nga xam ne ci la jant bi def di def musaamata ak aynul kaaba ci loolu ñaari at ñaari at ñaari fan lay am ci at mi ci weer yu bokkut yooyu yëpp indi nañ ko ci ginnaaw ba tamit ñu indi téere bi ñuy wax xawsul mubtadi muy jàngale surtout Cheikh moom itam li ma ko waxoon rek ñu bari ci ñu jàng ñu njëkk ñi boo leen laayoon tey Sëriñ Tuubaa duñu ci mën a wax lu bari su ma jàll si njëkk yi ndax amul amul lu ñuy jàng fan la ñëwee jamono ay jaar-jaaram loolu tamit bokkoon ci li tax ñu bind téere boobu ngir ngir gën a jàng mën cee mën cee sukkandiku kon daal ak dur samin daanaka wax lim bi baax na waaye ndax ndax matagul incha allah kon daal loolu mooy téere yi ñu jot a bind ñaan yàlla barkeel ko bu baax di wax na rek eh, lu mel nii moom ak yaatal la ñu jub rek xëy ci si ñu bari ay ci ay mbokk eh, sakku nañ ay jotaay yu mel bari waye xamna yalla yàlla lu gën rek da tamit di gantu di gantu bu yàggee bu yagge tamit doo mën a xam do ko kenn du ko mën a tekki <laughs> tax ñi ngi sant bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah. jërëjëf serigne bi ñu ngi lay sant bu baax ci tontu bu am solo bobu mel ne jot nga tuddu fi nga jaar ci walum jang muy alquranul karim ak tamit ci njangum majalis hmm. eh, ci daaneel bi nga andi tere yu am solo yoo am te jot nga ko talif way liñ ci setlu rek moy dañu gis ne yi nga tuddu jot ko talif melni ne ay fànn yu fasantikoo yu wote la hmm. te li ci gëna moy yu bari bari melni ne di ko janggu fi di ci sori hmm. xeyna na leg ci école yi lañ ko daan jang waye bu dee ci daaray majalisi daw ñu ko janggu kan jamono ji ñu toll nak mel ne mi ngi tàmbalee yaat ci réew mi euh, ak ci dëkk bi di Touba nga liggé ci liggé yu am sol li ci ëppit doon ay way euh, ñuy ñaan Yalla borom subhanahu wa taala barkel li ci jotta genn li gut borom def ci ak jàppandal ba lepp genn ñu man ko jariño ndax xam-xam la yu am solo lol euh xamna kon dañuy jox sëñ cheikh momit it euh, yenn tont ci dess mu and ko ak ñun insha Allah taala jërëjëf sëriñ bi euh, sëñ Cheikh xam naa day melni sax sëriñ bi amna na lu mu jot a ci lu jëm ci téré bi ñu waxtané ci waxtaane ben njëlbeen xonwaan bi muy tour bi nga xam mom la ko agé tit euh ciosanu téré bi ndax maneef na xam aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخدمه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك يا خمين نيوي توبو سين بي دي القديم ينو غي لين دي نيو باخ لين زياره دي جيتا جي نيو بك سيار بي سيرن منتخا مي خاني مو في توك جاتا شيخ القديم ديكو نيانال مي ياغ فتي وير لول اك مبولم جابر شيخ القديم دي سيار سيرن خليل بي باخ نيو نيانال مي ياغ في لول تي وير kon naa ak mébét yëpp suñu borom kattanal ko may di la siyaar suñu mbàkki di am mbégte bu baax ci jotaay bi lool ndax jotaay boo xam ne ak doole la ci ñun tawfeex la ci ñun ak jariñu la it ci ñun ñu ngi sant yàlla baax waaye nag doon doon nañ ci gën a jariñ bu baax ñu dikkoon rek di jariñu ci yéen ak yow ak sëñ beeg yëpp rek ay ni ko sëñ bi waxee rek léegi buntu xam-xam moom yaatu na yaatu goo xamee ne bu ci nekk saa su nekk rek yéen ji nga am mooy tasaare ko ak yaatal ko moom nag wax dëgg yàlla eh, donte bëriwul luñ koy gis ci mel nii waaye mu ngi liggéey liggéey yu rëy yoo xamee ne eh, mat na xam bu baax mat a xalaat ñu ko yaatal mat a feeñal eh, ci jàngale ndax liñ ak di yare waaye di bind mel ni ñeent yooyu sëriñ bi doon wax ci maxaalix daa mel ni ci la nekk ah, muy kenn ci réer jariñ mbindeef yi dundal xam-xam ak jafe eh, jëfe li nga xam wax dëgg yàlla ci loolu rek la nekk eh, bu dee cosaanul téere bi nag daanaka duñ ci guddal lool sëriñ bi wax na ko téere la bopp bu jëmoon ci ulumul Qur'an la ku ñu wax ak docteur mustafa moo taalif muy taxu koo gudd lool moom la sëñ bi jël def ko ay aw way ndaxit ku nekk xam ne njariñal way e, solo si mu am ci kaw wesar wesar am na solo lool waaye waaye da ko ëpp solo ndax solo si mu am moom way dana tënk lu baree bëree bëri loo xam ne waaye da ko yaatal wesar ko yaataloon nekk ko noonu ku bëgg a takk waaye dana def moo nga a takk lu bari ndax fal ixtisaaru kaana sa abal fahmi alal luquli siyama fi nasmi waaye waaye day jàppandal ak mokkal li annahu yusahilu l xifsa kama yaruqu li sami man sama mu jël ko way ko def ci ay ay ay dolli ay tazilaat ak ay ziyaadaat yu ama solo yoo xam ne mënu ci woon a ñàkk ci yeneen téere ci ni mu ko waxee ci al fi ulumil quran bi amaam Suyuti yi ak yeneen téere yoo xam ne téere yi ulumul quran la mu nek nak fànn gu raar raar raar bo xam ne wul ñuko fi talif ci suñu gox bi ni yaakaar ci lañu xam señ sëñ bu so def na ci ab euh ci mag ñi fi jiru fi ci réew mi waye ku ñu xamaat docteur Abou Madiana soxna bu ciow ak mom mi ci ñi nga xamne mom lañ mom lañ japp kon mu nek fànn gu raar go xam mën la euh te borom xam-xam yi jiitu yëpp da nañ ci te talif nañ ci ay téré yu bëree bëree bëree bëri waaye suñu réew mi mel na ni taalif gi yeex na ci moom nag mu jël ko wax dëgg yàlla def ko aw way way wu am solo bu yomba mokkal bu neex a takk mu indi ci ay masaayil yu bëree bëri bëri it loolu daal moom lañ mën a wax ci cosaanu li nga xam ne mooy téere bi ah waaw turu téere bi am ni ñu ko xamee rek sëñ bi ñu nag nga junj ko mooy mawaahibu rahmaan waaye tur bi gën a mën mooy mawaahibu rahmaan wa tuxfatu wa tuxfatu taalibil irfaan fi ulumil quran maanaam may suñ boroom ci ak noflaay wala ak ak walla may goo xamee ne ñi sàkku xam-xamu euh, alquran ñoo koy sàkku waaye ci jëmmi matière bii ñu wax ulumul quran loolu mooy tur yi di tur yi turu gànjaru la euh, wax dëgg yàlla ndax turu léeg-léeg dañuy wax ne day dañuy wax ne day attire day attiré nit ki ci li ñuy li nga xamee ne moom lañ tuddee mbir mi képp koo xam ne gis nga woon waat bi rek gis nga ismu bi rek nan la sawxuloo dana def ci yow benn sawxu ngeen nga yaakamti liir li ci biir mu mel ni tur wii li muy woote boo duggee ba ci biir loolu nga fi loolu nga ci fekk mi mawaahibu rahmaan wa tuxfatu taalibil eh, quraan fi ulumil wa tuxfatu taalibil irfaan fi ulumil quraan ah jërëjëf sëriñ Seex ci tontu bu am solo boobu mel na ne bi tur la woo xam ne bu am solo la ndax Eh, buñ xolé xoolee mel la lambo muy daaneelukaay yi ñoo tollo tay it jëmmi tur bi rek boko jangate da nga gis ne fim jëm sax xam-xam bi nga xamne ci lako ko da ci leeraale muy ulumul quran eh, leeral nga tamit te señ bi junjuñ ko sank euh ciosanu téré bi melne ne docteur mustafa Mourad dëkk Égypte di kat bu jambaré mo am téré bu mu talif ci ulumul quran mu jël ko way ko waye bim mu ko wayet mu andi ci yenen téré yo xamanteni jëlé na ci ñom bu ci ne euh, al itqan bu al imam asuyuti ak yu bari bari jot nako ko ci bir xamna day mel ulum qur'an nak doon fann bu am solo bo xam ne euh, mel na ne léegi ñu koy tambalé xam di tambalé jang ci suñ barab yi ban way la am deug deug ngir nit ki mëna xam waxe yalla borom bi subhanahu wa taala señ cheikh ak eh, jërëjëf suñ Mbàkke ci laaj boobu noonu daanaka ni ko wax rek eh, dañuy wax ne ndaw lu nekk day yore daade ko ko yónni ulumul quran buñ la laajee ci lu muy wax nga ne alquran loolu rek doy na ko sharaf doy na ko ahamiya waaye doy na ko xiima alors ci alquran lay wax te alquran lépp lu am alaaq ak moom lu laalante ak moom rek am nga ak tedd xam-xami alquran yi nag dafa bëri lool xam-xam yi laal ci alquran tafsir usul tafsir qiraa tajwid même jëmmi ulumul quran gi waaye ulumul quran yi da nga ci dugalaat mu lay jàngalaat ay détaillé lay yooyu nga xam ne moo nekkaat ci biir yooyu ma waxoon léegi ndax ci biir ulumul quran dañ ci jàngale qiraa lenn ci qiraa ndax moom daa am mafhumu am ak mafhumu xaas mën nañ koy ma mafhumu am muy ulumul quran lépp loo xam ne day wax ci alquran rek muy mafoomu am bi mafoomu xaas bi nag mën naa nekk jëmmi ulumul Qur'an mu nekk madda bu ñu jàng ni nga xamee ne mooy téere bi ñu ñuy waxtaane tey am madda la ci biir alquran ndax jàngalewut tafsir bi zaati jàngalewut usulu tafsir jàngalewut manhaju tafsir jàngale bu mel noonu waaye jëmmi ulumul Qur'an lay jàngale lu mel ni xamle lan mooy alquran alquran yi ci wàcc yi nekk yoo xam ne dañ ko wàcc daa wàcc nekk global ak yi xam ne daa wàcc nekk luñ détaillé ak yi nga xam daa wàcc Màkk ak yi wàcc Madina wala yi nga xam ne daa wàcc ci tukki mu wàcc ci euh, ñàkk tukki wala wàcc xeex wala mu lay jàngal turi alquran yi walla mu lay wax turi yi nga xamee waroon na ci alquran lu mel ni turi picc yi turi barab yi euh, ci àddina wala turi barabi alaxira yi wala yu mel noonu xam ne day yaatu lool rek wala ñëw ci jàmmul quran yooyu yëpp day dugg ci biir ulumul quran ka maddatin nga xam ne boobu day dekk mafhum bi nga xam ne xaas lay doon bokkut ak mafhumu am bi nga xam ne day duggaale nag yeneen yi ci des yëpp di ulumul quran solo si nag ni ma ko waxee léegi mooy aju gi mu aju ci alquran rek doy na na ko doy ko sharaf ndax alquran lépp lu am relation ak moom rek yaa gën la ne dudut yow lépp lu am relation ak moom ya gën la ne dudut yow même mustalawal xadis sax ni nga waxee saraf bi mu am mooy daa aju ci xadis te aju day leeral alquran nga xamne momi da am benen alaqa bo xamne amna bu ko rabtu digeunte al euh, mom mustala wal hadis digeunte mak euh, xam-xam jimi euh, hadis ak jimi alquran ci bopam kon muy xam-xam bo xamne ne munu ci munu cee mënut a ñàkk ndax wax xam wax suñu borom ji da nekk lu war bu ko ñepp ma woon bàyyi dañ ciy amandoo dañ ciy ko ñi nak man koo man cee dimbale ñu ci des bàkkaar bi wàcc ndax ñi ko am ñu ngi ciy dimbale ñu des te xam-xam suñu xam-xam alxuraan xam suñu borom wala xam waxi suñu borom da caa aju xam euh, yoon yi nga xam ne wasaayil yi nga xam ne ñoo lay eggale ci yooyu ci jëmmi alxuraan da caa bokk ngir nga xam ko jëmmi ulumul quraan nii bi sa fi xaas da da cee bokk moom da cee da nga xam ko euh, ndax dañ la dimbale bu baax a baax a baax boo eggee ci aaya nga xam sababu suul bi lu mel ne boo demee ci. Eh, borom xam-xam yi defal nañ ko ay téere an euh, nusulu nusulul quran wala sababu nusul wala yu mel noonu am na borom xam-xam yoo xam ne dañoo taalif rek ci sababu nusulul quran kon euh, euh, moom daal am na solo solo soo xam ne daal jàpp nañ ne bépp kuy sàkku xam-xam mënu koo munu koo ñàkk képp koo xam ne day sàkku xam-xam mënu koo mënu koo ñàkk ba tax na li ci borom xam yi bind it bëri na lool boo xam ne mën naa am jataay bi duñu duñu may ci man koo sard ci benn jataay waaye bokk na ci daal lu mel alburhan mel ne al itqaan wala manhajul furqaan wala bo bo bo bo eh, bo bo bo imaam alqaxtaani bi eh, wala ahkaamul quraan yooyu yëpp ci ay ay ay xeeti xeeti xam-xam la yoo ba xam ne daal bii nag daa bokk ci yooyo noone kon solo si mu am mooy mu ne su ko ñàkk jàng ndax moo ñuy tax ñu xam wax yàlla te wax xam wax yàlla day nekk farata ci jullit bépp incha allahu taala. ok jërëjëf Serigne Cheikh ci tontu bu am solo woowu. ndax buñ ne ulumul quran rek day mel ne day am ñaari maanaa bu yaatu ak bu xat muy xam-xam boo xam ne day làmboo lépp lu aju ci xeeti xam-xam yi laal alquranul karim euh, moom it doon loo xam te ni nit ki ngir mu dégg alquranul karim faawu mu xam ulumul quran euh, wax nga importance bi nga xam ne am na ko mel na ne sax tafsirul quranil karim nit ki mënu koo def te xamul ulumul quran mel na ne booy jàngat ñi tafsir alquran delu wat ci ulumul quran lu bare bare bare am day dugante bu baakha ba euh ñetteelu laaj bi muy li nga xamne ne lañ doon leral sank ci ginaaw dafa melne ne ab manzuma la muy lu ñu way kañ la ko sëriñ bi way ak même abyaat yi nga xamne ne tamit mom la lambo buñ doon mana xayma ci ñaata bayit lay wara tollu ak yan jamono la ko bi way maa ngi jërëjëf sëñ Mbacke eh, téere bi sëñ bi mi ngi ko woy ci atum mille 2017 ci tubaab def naa moo toll ak 1438 ci ci hijri yi ndax day ni ko waxee rek <laughs> yàgg yàgg bind lool lu ci ëppuri ay maqalaat wala ay baax si yoo xam ne daana ko def wala ay mas ay masala mu bind ci eh, waaye comme bind goo xam ne bi gën naa fees mu bind ci mel ni bi ci jiitu nga xam ne siiw na yaatu mooy dalilul xayraan aw kaw ko mun munawwirul bunyaan mu jëm ci xam-xamu tasawuf mooy di bu am solo lool moom la njëkk def ci e, bind ci wàll googu noonu ginnaaw ba nag e, mafatihul ulum makasiful xulum moom mu jëm ci mustalahul xadis indi ci lu am am solo damay wax ne suñu dëkk bi ñu fi jàng ci mustalahul xadis sax e, yaakaar naa bu ko ci gën a matale man gisuma ko ci moo xam yu nazmi la wala yu yu nazri yi ndax daa boole yi nga xamee ne muxtasaraat yi la ak yi nga xam ne mutawalaat yi la Ah, ndax nit ku bu ko jàngee pare daanaka mën na ca jóge rek jang euh alfiyatu suyuti fil mustalah wala alfiyatu araqi fil mustalah bu ci euh kon am am am am solo ginnaaw ba nag la ci tek bi di mawahibur rahman bi ni ci atum 2000 2017 ci ben nga sax nak ci ben atum 2017 ci ñaar wër yi ñëkki euh lay tollol waye di ci mujjanteluk atum 1400 1438 ndax ci wéro rajab japp saxbaan ci la ci lay tollool euh, ci la ci la ci la nekkoon bu dee bayit yi bait, daanaka jege na ñetti téméri beuyit euh, taqriban jege na téméri beuyit euh waaw bi dapt nak mom euh, jamono ji mëna am téelu ma way dal daal jege na ñetti téeméeri ñetti téeméeri bayit ok jërëjëf sëriñ Cheikh ci tontu bu am solo bobu xamna bu du ñak mo am lum lambo ci ay mawduat ni eh, jot naa rot ci bir bo ñu bëggoon a tënkal téere bi tém yi nga xamné ne sëriñ bi jot ko rotal ci bir tamu la la Qur'an yan tém mo ci ëpp solo. Eh, téré bi sëñ bi da ko tëggee mu fassalan maam def ko lo xamné ay fas la dekkul mu bawu ban maam lo xamné dañ ko tabib nekkul luñ ko def ay buntu ay fas la lay doon nga xamné day am alaqa bu ci nekk rek ak morom ba jitu léeg-léeg sax nga liir faslu boo xamee ne waaye mel ne lu ñuy wax continuité lay am. ak faslu boo ko liiroon mais lu ñu tudd yonente yi. bu ñu doon toppatoo ba ñu pare ba ñaar fukki juróom ñu rot ci alxuraan wa xayruhum. ci beneen faslu bi ñu doon wa xayruhum lu tàmbali kon daay maa laa ko. waaye faslu yi mu ngi toll ci fanweeri fas la ak juróom-ñett. fanweeri fas la ak juróom-ñett. ñu ci gën a am solo rek boo xoolee yu mel ni am nañu ne al aam xaas. am nañu ko wal mafhum الناسخ والمنظور او المتشابه مشاكل القران خصم خصم العصيص بنفسه معهم القرآن جين جيمي جين اولا ولا العلوم المستفاده من من القران كان خم يخم يعني دنجي بلو تبير بير القران ان جام القران يكون من اسماء ويخم خم يعني ربنا جي اولا يبري بالنبي من اسماء الصحابه يسين رب ولا اسماء الكفار asmaa al xabaa'is la wala asmaa al bilaad wala asmaa al amaat hmm. wala asmaa al tuyur wala yu kon ay ay fasl yu bëri bëri fanweer ak juróom-ñett mën naa am bu bëggoon li dana jël waxtu bu bëri bëri bëri bëri hmm. ok jërëjëf sëriñ Cheikh ci tontu bu am solo boobu xam naa bi nga xam ne nga jot a leeral ci thème yi nga xam jot na lam jot thème yim làmboo ci biiram xam dana aji tamit ñu laaj ndax doon na téere boo te ni dañ koo mool ba mu tasaaroo ci bibliothèque yi ak tamit fan lañ ko moolee waa kay jërëjëf euh, euh, suñ Mbàkke waaw xam naa téere bi nag bu dee li ñuy wax mool goo xam ne mool nañ ko mool yi xam mool yi nii euh, ba pare mu mool ci lu bari ab kem tasaaroo ko def ci nekk ci bërëb ñi wecc koo téere wala ñu ci ko joxe maanaam bu dee mool googu moom amagu ci moom acteurs yi jiitu yëpp waaye teewul mool nañ ko mool goog euh, jamono yi nga xamee ne dañuy ba sax ñu ngi def waxtaan ci koor ci daara ji waxtaani koor yi dañ ab lim lim boo xamee ne ñi nga xamee ne ñoo fi daan ñëw daan def waxtaan yi ñooñu ku daan waxtaan ba pare ci weeru koor gi yëpp danañ la ci jox ab téere gi yóbbaale ak ñenn ci borom xam-xam yi nga xamee ne. Euh, ñoo jagoo woon daan nañ leen ci daan nañ ci jox ay euh, ab lim kenn ku nekk moom it bu dee muul goo xam ne daal dañ ko muul muul gu gu yaatu mën naa moom amagul donte ci naal ak mébét yooyu bëgg yooyu ndax xam it boo ko defee pare daanaka yéene jeg bëgg mébét yëpp mooy mu yaatu mu tasaaroo rek euh, du moom rek waaye ak moom mook ay kemam yëpp incha allah fas yéene nes na ko muul incha allah euh, tasaare ko ci jàngkat yeeg borom xam-xam yeeg ñëpp rek euh, ngir jariñ li gën a gën a gën a mën a gën a mën a yaatu ci loolu sax laay waxaale euh, loolu xam ne suñu waxi bopp la <laughs> mooy lu mel nii wara suta toog bu heure bii te moolasu ko kon ñi nga xamee ne lu baax doo nga leen ñor ak yitte jooj doo nga leen ñor ci lu mel noonu moy li sëñ bi da ko def paré pare waaye maanaam ko <laughs> ñu jéggulu ci bi euh, kon kon kon lu wara yaatu la kon képp ko xamné ne nag suñu borom mayna na la doole nga man ko yaatal man ci sama ci sama ci sama ci sama kàddu non lay wo nga ñu yaatal ko ndax euh, yaatal lu bax la yaatan jariñ la yaatal aw yiw euh, kon kon kon aaje wonako ko baax baax Euh, loolu daal ci suñu kàddu ñu ngi ci woo képp koo xam ne yàlla mën na la ko ñu jàpp ci ànd kook yow mool ko mool bu yéwén bu ñëpp mën a jot boo xamee ne bu bu taw féexee lay lay daal di lay doon incha allah waaw kon loolu daal ñu ngi ciy bàyyiloo xel mbokk yu baax a baax. ok jërëjëf ci tontu am solo boobu euh, mel na ne doonagut luñ mool mool bu ñu xam bu tasaaroo. waaye teewuti don na téere bo am dini ñu bari bëri egg na ci seeni loxo muy ay gëstukat ak lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne nekk ci dëkk bi di Touba loolu nga wax yaakaar lu bax mom ko xass ba def bang ko defee rek danaka la dugg ci momelu ñepp kon kep ko am tini ni lu nyor ñor na la war nga ci taxaw mol ko mol yo xamanteni ni yu depp ak jamono lay doon bam mu nit ñi gën ci mëna xam naa laaj biñ koy tëjee laataa ñu joxaat sëñ bi kàddu gi ndax doon na téere boom nit danañ ko faral di jàngale ci lenn ci majaalis yi ne ci biir Touba. ok jërëjëf xam naa bala maa ñëw foofu ma ma mottali leen rek ci li ma mooy ci muul gi solo si maam sëñ bi yaakaar naa lu mat fukki fànn wala lu ko jege taarif na ci moo xam yii ñu xam nii la léeg-léeg sax dana taarif ci fànn ba pare mu am ak cànkute léeg-léeg ci mbiri eh, dogal borom tabaraka taala dogal mu amuk cànkute donte loolu moom ñuy yëngu ci xam-xam ñu bëri daanañ leen gaar ak nu mën a amee waaye eh, santoon nañ ci liggéey ngir ngir mën koo sàmm nga ñu mën koo dajale ñu dajale ko ci benn bërëb eh, juróom-ñaari téere yépp yoo xam ne dañ ko dajale ci benn bërëb muy dalilul xayraan bi ma kaasi mafatihul ulum bi mawaahibu rahman bi almughni anil asfar fawsul mubtadi bi masalikul anwar ak durru samin bi yooyu yëpp ñu dajale ko ci benn téere yu juróom-ñaari téere yoo xam ne benn bu ci nekk rek yii mën na ñett téeméeri bayit yii ñett téeméeri yi tegal la yi ñett téeméeri bayit ak nangam la waaw euh, buñ ko boolee yooyu yëpp daanaka eggoon na ci téeméeri paas ak ñeent fukk defe naa wala lu ko jege te te taxut sax liggéey bi egg liggéey bi ca kon ñoo ngi woo ñi nga xamee ne suñu borom mën na leen ko ñuy dégg suñu kàddu te nekk ci bi xam ne li yaatal xam-xam la bu baax a baax a baax sëñ bi moom daanaka da ko bind ñoom la ko defal ñoom la ko defal ak ñun ñu mel ni man ngir ñu mën cee jàng baax bu dee laaj bi nag mooy ndax ñi ngi ko jàng ci bërëb yi awalan fii ci daara ji moom lu ci téere yi nga xam ne sëñ bind na ko ñu ngi ko fiy jàng boobu lu ci téere yi nga xam ne bind na ko ñu ngi fiy jàng fii ci bërëb bi ñun ñi nga xamee ne it wax dëgg yàlla fii lañ doon sàkku xam-xam téere yoo xam ne bind na ko pare lu ñëwut tëral ko teg ko it ci ci ci ci moom it daanaka mën nañ ne ci tàmbalee ba ci mujjantal ga eh, lépp ci moom lañ koy moo ñu koy moo ñu koy leeral moo ñu koy leeral ba ci jubluwaay yeeg eh, waaw loolu kon kon man naam nag jumbut léeg-léeg mbir mbir da nga ko bindee bare ma xas ba génn egg ci loxo nit man naam ñu ngi koy ñu ngi koy jëfandikoo ñoo xam ne yow mën ko bañ a yëg jumbut mu egg ci daara yoo xam ne gis nañ ne lii fànn ko am solo la ñu koy jàngale ndax loolu xam nañ ci dara eh, mas naa cee jokkoo ak kenn muy wax ne ma moom kat euh, téere bii di Mawaahibu Rahmaan sax bi ñuy waxtaane moom gis bu ñu ko gisee mu am solo ñi nga xamee ne ñoom la doon jàppalanteel muy ay rakkam ak ñu mel noonu doon leen ko doon leen ko tëralal doon leen ko tëralal am na ci ñenn ñu mbokk yi nekkoon Murtani doon jëng ci ilmul qiraa biñu demee ba war def ay compo ak ay bind seeni baax sa doon nañ ci jokkoo ak sëriñ bi eh, ngir sukkandiku ci téere bi kon loolu lépp ci barab bi la waaye nag yéen ji moom mooy fi Laxdari yi egg fi eh, Ibnu Ashir egg fi risaala àgg mu àgg fu ko fu ko romb ngir ñëpp mën cee mën cee jariñ incha allahu taala ok jërëjëf sëriñ Cheikh ci tontu bu am solo boobu loolu léeg-léeg da ci baax lool ndax téere yi ñuy bindee fii ci réew mi di Sénégal léeg-léeg da ci gis téere yoom te ni day nosu tey day tënku lool euh, daanaka am na yeneen téere yu ñuy jàng muy jóge bitim réew yooyu day gën a gudd te yi mo koy gën a fasu jàpp naa ne ñi nga xam yor ay daara wala kat yet léeg-léegi ñuy sukkandiku ci li nga xam suñ doomi réew ñoko def dana ci bax lool ndax loolu dana tax nit ñi gëna xam téré bi dana ko gëna yaatal comme dama ci joxe exemple rek lu melne ne téere nga xam suñ abo madiana moko sara muy saada tulaab don sara bu am solo léeg-léeg da nga gis ñom te euh programme yi ñuy ci walum nahwu ak sarfu beek lu ci aju de surtout ci naxu bi sax lu ci bëree bëri wax dëgg yàlla man di tibbu fofa di ci jël di ko jàngale dana wane walé ki ko bind ndaw ñi nga xamné ñom lañ koy jox ñu jéem a koku moy kan ak tamit liggéey bi dana wane walé xima bi nga xamné ne ci am solo te akana naa téere xalil yee taxaway yu mel non rek la amé xamna kon dañuy dal di jébbal kàddu gi sëriñ bi euh, mu ñëw nak ci ay labiré yo xamné ne koy ak ay dénkaane ci mbooleem ñi am ne gëstu xam-xam ñor na leen ak ñiy faral di bind ci yoonu. waaw ñu sant bu baax ci leeral yi nga xam ne dégg nañ ko fi muy lu am njariñ te lépp rek yéenee jariñu yéenee jariñ yeneen moo tax loolu wax bokk ci kiimaan yonent bi sallallahu wa sallam ni ko suñ bi waxee ci téeréem yi mooy dafa jariñu ba noppi jubloo jariñ ñu ñu bokk moom te loolu eh, gis-gis bu yaatu yaatu la te mooy doomu adama yàlla da koo bindul ngir moom rek da koo bind ngir mu nekk koo xam ne day jariñ doomu aadama yëpp loolu sax dañuy gis ne mooy njariñul taalif ndax borom xam-xam bi bu fekkoon ne lim jàng lu mu jëfee di ko jaamu yàlla la loolu tiyaaba jaag njariñ la ci jëmmam lay am moo tax bu taalifee nag day nekk loo xam ne day jëriñ doomu aadama yëpp moo tax sax ñuy wax ne borom xam bu fekkee ne léeg-léeg taalif mooy gën ci moom toog di jàngale gisee ne am na xam-xam bi te yàlla defal na ko ci ubbeeku ndax yàlla suñ borom bi ku nekk ak wàll gam la ubbil rek mën na ubbil nit ci ay wàll waaye am na wàll goo xam ne da da mel ne sax yàlla wàll gi nga waajut ci lay gën a ubbil léeg-léeg ci wàll yi nga waaj léeg nit jàng jàng jàng ba ci ci njàng ba sori ca ci genn wàll jékki-jékki rek dugg ci geneen wet goo xam ne béyu goon xel sax nga xam ca la may jariñu di ca jariña ci wet googu la lay gën a lay gën a bàyyi kon loolu yàlla mu baaxoo loolu kon yéen ñi tamit ci bunt boobu rek la mooy ndax lu baax moom ni ko sëñ bu waxee dara jaru ci xeeb ndax mën ngaa wax genn kàddu rek kàddu googu mën nga cee defar ay nit yi nit mën na am ku nekkoon ci biir tayel ca nga gis dara wala dégg dara sawaraat ca mën naa am koo xam ne jàppoon ne nangam mënut am wala moom mënu koo def waaye bu gisee ku nekk ca loola di ca jëf mu xam ne nim ko mane war na ko bàyyi noonu loolu dana ko soññ ci moom itam mu jóg jëf te yàlla suñu borom bi jëf ku jéem dara lay jàppale kon loolu ñu ngi leen sant bu baax a baax ci bunt yooyu nga xam ne ubbi ngeen ko ñaan yàlla nangu liggéey bu baax soññe bi nag moom daanaka sëñ bu mag bi def na ko ci téeréem yi yeeg jàngaleem yi ba mooy jàng xam-xam moo jiitu ndax li mu wax ci téere bi yëpp mooy li njëkk war mu kàllaf mu nekk mooy jàng ba xam ku jàng ba xam nag doo ko doo ko jëfe kon li nga xam ne moom la suñ bi woote nekkoon ci loolu lu leer naññ la ci ñëpp mooy jàng ak jëfe xam-xam ak yaru ak yare loolu nag lu yaatu yaatu la xëy na eh, nekkul loo xam ne luy xàcc jataay la waaye ñi ñu ngi sant yàlla bu baax di wax rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di ay borom xam li ñuy jàng eh, nañu xam ne loolu moo taxoon sañ sañ sañ sañ ci dëkk bi nga xam ne eh, li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku mokkal alxuraan ba noppi eh, di gis ne doomu aadama ba am na loo xam ne man ko koy ñee moom fekk na lu yàlla rëyal lool mu daal di koy tuutal mokkal alxuraan dara féetu kaw kon kenn waru koo am ba noppi di gis li leen jàpp ne loolu moo gën li nga am loolu tamit tegtal la ci borom xam-xam yi eh, ne li ñu am mooy mooy li nag borom yi eh, ñaareel nit ñi di leen bàyyi xel ci lu bari eh, loolu wutat maanaam nañ xam ne rek li liñ nekk mooy li xam ne moo gën mooy lépp ndax loolu mooy doxal dëkk bi maanaam liy doxal dëkk bi tax yoonu murit wala boog islaam jëm ca kaw loolu mooy borom xam-xam yi donte nag mën mën nañ leen bañ a gis mën nañ leen bañ a dégg waaye lii doxal dëkk bi dëgg-dëgg ci ñoom la bàyyi ko loolu nag kon sas la xam ne yan la boo xam ne teraanga la joo xam ne sëñ bi defal na defal na leen ko waaw soxla suñu borom defal na leen ko kon nag loolu dara féetu ko kaw Euh, xanaa rek yaatal xam-xam bi ak xamal ndaw ñi te teg seen tànk fi nga xam ne fi la sëñ bi nekkoon rek euh, loolu rek lañ ci mën a wax daal lu yaatu yaatu la asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah barakaatuhu sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci laabire yu am solo yooyu nga xam ne danga ko jëme ci mbooleem gëstukat yi ak mbooleem borom xam-xam yi ci jàng xam-xam ak jëfe xam-xam boole ji nag ay teggin ah, rawatina képp koo xam te ni dangaa doon ab murit ndax murit moom loolu rek mooy warteefam ndax sëñ bi daa waxoon jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falazimuha yoon fa ankumul wadab te mel ne loolu lépp day tënkaat rek kàddu gi xam ne jot nga ko wax xam naa su ko defee bala ñoo ñëw ci jeexantalu jataay bi ah, dañ lay sant bu baax di sant tamit serigne Cheikh sila talib mi nga xamne mom lañ jotona andal jotaay bi mu don leral lu jëm ci téré bi di sant tamit serigne bakke Mbegere mi nga xamne moko don jël ak serigne Mamour Touré mi nga xamne moy mooy sen bi di Al Khadimiya di jéglu bu baax ci coono yi waaye lépp rek xam ngeene mom liñ ci djublu moy jariñe ak jéem jariñu suñ borom it def na ci képp ko xam topp nga jataay bi danga ci mën a jëlee ay njariñ yoo xamante nii dana la jariñ waaye tamit dana la mën a def ab soññ ndax liñ jublu rek mooy di feeñal lenn ci ay bindkat yoo xam ne xëy na ñenn ñi dañ leen umpale duñ leen xam ndax yoonu murit léeg-léeg am na ci ñoo xam ne toujours ñoom la ñuy gis léeg-léeg sax ñu bare bari dañuy jàpp ne yoon wi moom yenn borom yi xam-xam rek la am te fekk ne yow borom xam bi nekk ci yoon wi bari na ba daana ñu bind denc ñoom kenn xamu leen baraan ñom te nii doo leen gis ñuy wax ci ay télé wala ñuy wax ci ay rajo waye yow mi leen xam da nga xam ni ñi ay mi xam-xam yu mata feñal lañ loolu rek lañ ci jublu te loolu japp na ne sagub sëriñ bi la sagub yoonu murid yoonu murid wi la ñu ñaan yalla borom subhanahu wa taala gën laa sàmm gën la ar gën la dëgëral te motti naal yépp ak yéen yépp ci barkeb sëriñ bi ak barkeb wëru mag wi nga xam ci lañ nekk kon mbokk yi lii mooy liñ leen andiloon ci allahu al qalam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.